mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi sant yàlla di jullit ci sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam am mbégte lool euh, ñëw fii ci baabu salaam euh, ngir waajal bis bi nga xam ni ñoom ñu ngi koy bàyyi xel at mu jot ren ñu jàpp ko dimanche 7 mai 2017 war ko ànd ak parents yi war ko ànd ak élèves yi war ko ànd ak ñëpp ñi nga xam ni euh, bëgg nañ alquranul karim waaye bëgg nañ yaru diine ñu bégal xale yi yendandoo ak ñoom ñu nuyu ziyaara Baye Chamet nga xam ni macha allah wax nañ ko ba tàyyi léppi diine fu ca canaba laaleeg fu mu ne rek wala ma nga ca ñuy ñaan yal na yàlla guddal fanam moog rakkam yi mu ko bokkal yépp fii nag mooy Babou Salam 1962 lañ ko sampoon Serigne Ibrahima Seck àndoon ak euh, Kabiru Mbodj ñu inauguré ko ren mu am juróom fukki at ak juróom kon édition 2017 tolloog 55 ans yu Babou Salam Thiénaba TV jël équipe bu am am solo directeur Alfassar jiite ko ànd ak euh, Moussa Ndiame Gueye sama collègue di directeur des programme ñu ànd ak Khalifa Ndiaye moom mooy caméraman bi euh, ñu fas yéene nag euh, dugg ci biir xool fan la liggéey bi toll ak directeur yéen kàddu la war a yëkkati Moussa Ndiame Gueye 55 ans te mooy juróom fukki at ak juróom ku ko am wax dëgg yàlla magum jëmm nga kon mature nga. ñu nga dañuy wax asalaamaaleykum wa rahmatullah di sant yàlla bu baax di julli ci Seydina Mohamed sallallahu alayhi di nuyu mbokku téléspectateurs yi jàkkaarloog ñun di ñu seetaan. xanaa di jël rek euh, sama nuyoo euh, di ko euh, sof ci sa bos rek bu ko defee nga yóbbaale ma géew li nga wax dëgg la dañuy am mbégte lool taxaw ci buntu baabu salaam buntu buntu nag ku ci taxaw muy buntu baabu baabu salaam ku ci taxaw yaakaar naa mbégte doong ngay am. mais njuga saa ndeke da ngaa dégg arab. waaw xaj na naar laa dégg waaye arab moom dégguma ko. waaye buntu baabu salaam. ku ci dugg mbégte rek ngay am. remarque bii njuga mooy. Euh, Babou Salaam boo fi ñëwee ñun daf ñuy fàttali ay souvenirs yu bari. Mm. ndax euh, donte nekkuñu woon baabu Salaam euh, doon nañ ñëw baabu Salaam ndax amoon nañ ay xarit yoo xam ni fii lañ doon jànge ku ci mel nii Ngagne Demba Sarr ku ci mel ni Maguette Cissé nga lim leen benn par benn ñoom ñëpp jaar nañ fi buñ masaa nekk biir pikin ba xaj na sax wéet. Euh, fii la ñuy wétali ko ci baabu salaam donc baabu salaam foofu nga jàngat ci ni baabu salaam ambassade la ci biir Thiénaba hmm. euh, Babou salaam dafay représenté euh, Thiénaba ci biir Pikine mu joué rôle boo xam nag rôle bu am solo la mais bi ma ñëwee léegi baa ñu ko dama am benn idée idée bi ma am mooy école yi nga xam ne muy daare yi nga xam ne ñoo nekk biir Thiénaba yaakaar naa ni dinañ jàng ba ak benn niveau bi mais am na benn niveau bi fa la ñuy yem yenn daare yi ci biir Thiénaba est amul jokkalante bu war a mën a am entre Babou Salam ak école yooyu nga xam ne wa daara yooyu nga xam ne ñoom ñoo nekk biir Thiénaba bu ko defee euh, mu mel ne rek euh, primaire la secondaire ak euh, sax ba ci université est-ce que jokkale googu tamit maanaam euh, kilifa yi jiite euh, daara yooyu ci biir Thiénaba ak kilifa yi jiite euh, Babou Salaam est-ce que waxtaan jotul ñu mën a waxtaan nag pour mën a jokkalante loolu ndax loolu yaakaar naa ne avancement rek lay mën a jural Thiénaba te yokkute lay mën a jural Thiénaba beneen remarque bi mooy boo duggee biir baabu Salaam wala nga ñëw sax ci bunt bi da nga fiy dajeek ay nit yoo xam ni seeni waajur maanaam ay xale yoo xam ni seeni waajur fii la ñu jàngee souvent nag dafay am lu lu raar mooy nit. jànge na ci barab ba génn euh, yàlla def mu dem ba nekk magum jëmm xeeb fa mu doon jànge jël doomam yóbbu ko feneen waaye su demee ba jàng ci barab ba nekk magum jëmm nekk borom xam-xam jëlaat njobootam indiwaat ci barab boobu kon kooku nga xam ni dund na ci barab boobu loola boo ko seetloo day dolli yaakaar ci barab boobu nga xam ni euh, muy muy muy muy barab bu mel ni baabu Salam te loolu euh, dal na baabu Salam ndax am na ci ay xale yoo xam ni seeni i waajur la ñuy jaaroon ci Babou Salam fii la ñuy jànge ba lu ci bari ci xam bu ñu am fii lañ ko jëlee avant ñuy dem bitim réew loolu tam bokk na ci remarque boo xam ni euh, vraiment euh, remarqué nañ ko en tant que euh, observateur mu nekk loo xam ne lu ama am solo la Baye Ndiouga Mbengue mm. jërëjëf Moussa seetlu bu amam solo la li nga seetlu lépp mm-hmm. wax dëgg yàlla nekk na ci baabu salaam ndaxte loo yàgg a def mm-hmm. da nga koy gën a man mm-hmm. te juróom fukki ak juróom du benn fan du ay weer ay at yu bari la kon am nañ ci expérience bu bare bare bari boo boo xam ni wax nga dëgg war nañ ko wàcce nag ci seen rakk yi nga xam ne ñoom ñoo yor ay daara taamu jàngale alxuraan ak yaru yaru diine mhm. loolu tam am na solo mhm. waaye xam naa rek ñoom itam ñi ngi ci mhm. mooy li olof ni woon rek borom uh, bitigu mbagg boo gis dafa naa ni magasin moo nekk ci xol bi uh, ñoom it ña nga ca macha allah ña ngay uh, yenn daara ya nga fa xam xale bu mokkale alxuraan ña ngi koy jéem a di ko defal ay programme yoo xam ni moom moo war ko war a ko gunge ci àddunaam ba mu am ay diplôme loolu tam kon remarque bu am solo remarque bu am solo la c'est-à-dire dama jël Babou Salam bu mel ni daara Amadou Makhtar Diop Euh, bu nekk Thiès euh, boo xoolee am na suivi bu xaw a mel noonu parce que souvent nga gis euh, ndaw mu jànge canab ba wàcc Euh, ñu ñu jëlaat ko yóbbuwaat ko ci daaray Amadou Baxtaar wala ñu jëlaat ko sax andiwaat ko daaray baabu Salaam wala ci beneen daara mais jokkalante bi. Mm. jokkalante bi mooy l'essentiel te loolu yaakaar naa ne sama appel euh, foofu lay jëm. mu nekk loo xam ne euh, mode organisationnel la. Mm-hmm. boo xam ni nag jot na. Mm-hmm. canaba canaba daal ci daal ci taxaw canaba nag bu ma ko waxee mooy canaba ak lépp loo xam ne dafa jokk ci canaba. muy la moom solo Moussa jàngat bu amoon solo nga nga def mm-hmm. mu mel ni tey boo demee canaba collectif des daam xule nekk ca bopp ba mhm. euh, sa appel bii lu muy dégg lay doon mhm. ndax wax dëgg yàlla mhm. euh, yëfi moom euh, xam-xam lay doon ca bu ak jokkale amee ci ñi am expérience ak ñi nga xam ne ñooy soog a jóg loolu askan wi rek ñoom ñoo ci amee njariñ kon yàlla na yàlla def seenu déggoo gën a sax su ko defee rek musaa yaakaar naa nag li ci topp mooy ñu dugg xool liggéey bi nan la demee fan la toll ak it ban appel euh, docteur Lamine Sarr di def euh, jëmale ko ci mbokki téléspectateurs yi Thiénaba TV point com. waaw ñu yaakaar ñu waajale ko bis bi loolu la ñuy def euh, dugg nag ci bunt bi waaye xanaa bala ñoo jeexal jaajëfal Thiénaba TV point com ndax vraiment mu ngi yaatal di liggéey liggéey bu am solo ndax bu jaree taal oto mu taal oto bu jaree dox mu dox bu jaree sax waaxu ci naaju tàng wi dina ko def ndax barki démb gis naa image bu bu bu am solo boo xam ni yaa ngi gàddu sa micro ànd ak caméra. ci euh, randonnée pédestre bi amoon dox lu man ñetti kilomètre ànd ak ñoom lépp rek pour bëgg woon mbégte moom moo tax ma ne bu joree dox sax ñu dox euh, loolu yëpp nag ñu koy jaajafal jaajëfal Thiénaba TV di ko jaajëfal euh, personnel bi nga xam ne ñoom ñoo ànd ak Thiénaba TV rek pour bëgg yëkkati euh, turu ba ca kaw yal na yàlla dimbali leen ba loolu ñu mën koo yëkkati ca kaw donte jóg na ci kaw ba pare ndax maam Omar Ndaak def na lépp loolu ñuy jaajëfal téléspectateur di jaajëfal mbokk yi nga xam ne ñu ngi seetaan di la jaajëfal di jaajëfal Alpha di jaajëfal ki nga xam ne mooy Khalifa Ndiaye ak Talla Sarr ma nekk kër ga di assumer intérim ba ci kër ga ko àndal yëpp. ñu leen di jaajëfal euh, euh, xam naa di dalal xelu téléspectateur bi nga xam ne moo ñuy seetaan ci euh, boo waxee nii fépp fu mu am lu mu sori sori ñi ngi génne dem ndeysaan ma ngay toog di ñeewante naan ay waay ni mu soree mbaa dinañ toppatoo seen bopp ak nangam kon ma wax leen nii tey moom directeur la ñu àndal ndax Babou Salam la ñu jëm. ndekki fa mu waree noon la ñu ko defalee kon Moussa yaakaar naa nañ ko daan defee rek tey moom dinañ wax ba ñëpp kontaan incha allah. macha allah kontaan nañu bu baax sëñ aada mu ngi jàkkaarloo man euh, di am leneen lu muy wax waaye kontaan nañ daal si gàttal macha waaw Xalifa Njaay ñu dugg ci biir <laughs> waaw فتطرقتم لرسول الله سنة عيد بتماديها قد غفرت قبرا يرويها بما قد رسمت هدينا ورسول الله من الشيطان الرجيم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 ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين sadaqallahu al-azim mbokk yi ba tey ñu ngi ci waajal conférence su Babou Salam édition 2017 ñu dugg ci benn classe fekk fi euh, ki nga xam moom moo ko yore euh, Baye salaamaaleykum. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. Euh, noo tudd Baye. ngi tudd Xasan Penn. gën siiw ci turu Oustaz Penn. aywa euh, Baye ñu ngi la fekk ci classe bi lan nga fi def. classe bi maa leen di jàngal. Mhm. ci matière diine yi incha allah. Mhm. ah yow yaa yore classe bi. waaw ban niveau la euh, classe bi. niveau saani sene yu awlu sene yi. aha mooy seconde wala. waaw seconde. ayca bismillah. mu mel nii ñii nga yor ñoom duñ ay xale de. waaw ay digg doomu lañu. est-ce que mag neex naa jàngal. est-ce que. mag neex naa jàngal. mag bu yaroo. Hmm. ñu man ko mu neex jàngal. Hmm. waaw bu yaroo di ko nag dafay jafe. aywa très bien kon ñu ngi ci waajal conférence bi incha allah ñoom ñu war a def ay jaloo jaloore parce que euh, lépp ci liggéey bi ñoom ñoo koy def fële. est-ce que nii nii nii euh, wóolu nga leen pare nañ pour incha allah le ñu génne li nga xam ne moom moo nekk ci ñoom. waaw ndax am naa ci xibra. ndax même nii ma leen di joxee sama cours mhm. jeexital na ñoom ñi ngi dem ci nu ñuy waye ak nu ñuy defee mhm. ma xam ne mbir mi yitteel na leen mhm. incha allah dañu si génn waaw aywa euh, bàyyi ñu xaw a kaf tuuti parce que classe mag yi jëmm nag la ñu ne waaw xool ma xoolal ma leen kal moo la ci gën a la jël nee ma kee la bàyyi nee ma kee la rek doomu aadama yi xoolal ma leen nee ma kee la rek kooku ñëwul tey kooku ñëwul tey nañ xool ci jigéen ñi ku ci gën a yaru ah. bu kenn mer de bu joxe nekk borom muraay bële borom muraay bële moo gën a yaru kon moom laa soxla moom laay waxtaanal mu représenté ñi ci des euh, pour wax ni rek euh, classe tam noonu la soo ci duggee euh, oustaz ba mën a kaf élèves itam mën a kaf day tax xam-xam bi gën a gaaw lan mooy exactement matière yi nga xam moom ngay jàngale fii maa ngi leen jàngal lu tudd fiq fiq tawxiid mhm. am na lu tudd tafsir mhm. tafsirul quran am na mursalul xadis mhm. ak ulumul quran macha allah bu dee ci ñii mhm. ba mustawa eh, saalis sene bi aywa faraid maa leen koy jox mhm. ak tafsir macha allah aywa kon yow macha allah yaa ngi am mbégte lool ci ànd ak Babou Salam pour eh, jàngal xale yi waaw lan moo tax nga tànn ñëw ci privé bi di fi jàngale privé bi ba mu fay jàngale ndax dana jàngale matière yi ma soxla aju si diine fii laa ko mën a am moo tax ma tànn privé di si jàngale. te it mi ngi jàll bu baax ci xale yi. mi ngi jàll incha allah ñu koy xam ñu ngi koy bëgg. aywa mën na maa dugg ci ñoom ndax waxtaan ak ñoom. soobee suñu borom. aywa jërëjëf Baye aywa. kii ñu sant yàlla bu baax am mbégte teew fii ci Babou salaam ngir waajal seen bis bu tedd ba boobu nga xam ne moom la ñuy waajal édition 2017 euh, ren incha allah war a am euh, samedi 7 euh, mai 2017 ñu war ko à dimanche jërëjëf soxna si ñu war koo xëyee. doo ko ànd bégal xale yu ndaw yi waaye bégal mag ñi li nga xam ne moom la ñu àndee ak seeni sëriñ daara te mooy ustaas yi nga xam ne ñoom ñoo leen yore ci kaw classe yi euh, teraanga jooj te mooy xam ñu génne ci liñ ci mën a génne euh, bégal ci parents yi ci loolu nag la ñu jógee Thiénaba TV ànd ak équipe bu am am solo directeur Alpha jiite ko ànd ak Moussa Ndiambe Gueye euh, seen caméraman Khalifa Ndiaye ñu ànd ak seen mbokk Ndiouga Mbeng ñu fas yéene seq waxtaan ak ñenn ci ñi ñu fekk ci classe bi nga xam ni wax nañ ma léegi nii mooy classe su euh, seconde euh, benn ci yooyu nga xam ni fekk nañ ñu jàngale matière bu ama am solo euh, gannaaw bu ñu duggee nag ba nuyu oustaz ñu séq waxtaan ak ndongo yi ci boppam soxna si salaamaaleykum. maaleykum salaam. soxna si yëkkatil rajo bi parce que nee nañ ma yaa fi gën a yaru. ah yëkkatil rajo bi nanga def. ñu ngi waaw ñu ngi lay ziyaara bu baax a baax laaj bu njëkk bi mooy ndax am nga mbégte. ci jànge Babou Salam est-ce que du lu la parents yi forcé déedéet am naa mbégte lool jànge Babou Salam mhm. euh, lan moo tax euh, ndax école bi macha allah ba ma fi ñëwee yàggul waaye gis naa fi waaye gis naa fi lu rafet ndax oustaz yi baax nañ macha allah. Mhm. éducation bi rafet na ba pare oustaz yi ñuy jàngal tamit yéene nañ jàngale bi. Mhm. dëgg yàlla kontaan nañ ci loolu. Mhm. Euh, kon bu ma la déggee mooy euh, ñeewoo yeneen élèves yi nga xam ñi ngi jàngi xay na ci yeneen école yi tubaab ak yu deme noonu formation bi ngay am fii est-ce que jàpp nga ni mën na laa gunge ci sa àdduna. waaw mën na maa euh, ban matière moo la gën a neex ci yi nga fi amee par semaine. matière yëpp macha allah. non mais wax ma bi nga gën a ay. <laughs> oustaz matière yëpp macha allah. damay dellu ci oustaz laaj ko ko de <laughs> ban matière moo la gën a neex ban matière moo gën a yomb ci yow pour nga comprendre ko. matière yi ah matière fiq macha aywa ah, fiq yaa ngi koy comprendre bu baax. aywa très bien euh, ñàkkul benn bis nga nekk ak euh, say morom fii ci classe bi oustaz taxaw di joxe benn dars ci fiq mu am benn masala bu mu génne boo xam ne neex na la lool ba nga di ko fàttaliku. est-ce loolu mas na laa dal. waaw matière yi ñuy joxe macha allah surtout mhm. mu jàngale nikaax macha allah. Mhm. Mhm. <laughs> da ngaa bëgg a sëy. <laughs> ndam naa jëkkër. ah macha allah moo tax mu neex la ana monsieur mbaa fii lay jànge eh, monsieur di la jànge aywa très bien eh, jërëjëf eh, macha allah kon gis nga ko classe boo ci nekkee kenn ku ne xam na ni am na matière yoo xam ne da lay lëjël wit sonal la pour nga comprendre ko day jafe mais am na matière yoo xam ni yooyu dalay lay neex lool macha allah ba nga xam ni dinga ko comprendre bu ko oustaz day joxe. moom nag dégg ngeen ko nee na matière yi nga xam ni dafay jàngale ci wàllu sëy matière boobu moom neex na ko lool xam naa da ciy soog a dugg ñu koy ñaanal yàlla na ko yàlla defal sëy bu barkeel waaye lu jafele nag yor sa foyer ànd ak di jàngi faw monsieur ànd ci yàlla yàlla defal leen jàmm incha allah dañuy seet nag kenn ci ñoom koo xam ni moom duggagul ci sëy tey góor ñu wax ak moom euh, jërë ngeen jëf euh, mbokk yi ba tey ñu ngi ci classe bi nga xam ni benn ci classe yi seconde yi nekk fii ci Babou Salam la ñu am lool macha allah gannaaw ba ñu waxee ak soxna soosu nga xam ni eh, feeñal na kéemtaan moo di ndekete yoo baabu salaam boo amee boroom kër sax di sëy du tee ñu tee di la jàngal xam-xam ndaxte eh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko nee na woon jigéen mooy la première école. kon jigéen bu amee xam-xam rek société bi baax eh, jërëjëf kon direction bu baabu salaam sang bi salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw yëkkati rajo bi tuuti. Mm. yow moom dégg naa fan yi lañu la may soxna. amaguma nag. Ah. <laughs> <laughs> Sali. xanaa ngeen ñaanal ñu rek incha allah Sali nan. Sali Babacar Bater. waaw <laughs> aywa très <laughs> jërëjëf Cheikh bi muy ambiance bu am am solo am hmm. fii nga xam ne moom moo di classe bi. Euh, li muy leen nag yaakaar naa mooy. bu ñu xoolee âge yi xam hmm. nañ ni ay mag yi jëmm ñooy jànge fii hmm. bu ngeen ko dëgëraloon rek oustaz am problème aha lan mooy seen relation ak oustaz mi leen di jàngal bala ñuy dugg ci waxtaan euh, relation bi ñu am ak oustaz bi mooy bu ñëwee jox ko respect bi bi ñu am ak moom. Euh, ba moom it mu mën ñoo jox euh, li nga xamante ni moo war si ñun. incha allah bu ñëwee alaaqa euh, bi mën nañu alaaqa waajur la ak ak njaboot. Mhm. waaw moom la am daal incha allah. Mhm. diggante ndax oustaz am na pédagogie. waaw macha allah non bul ko ragal du la may zéro tey fii amul may zéro. macha allah est-ce que oustaz am na pédagogie. waaw macha allah am na am na pédagogie macha allah. <laughs> ban matière la doon joxe tey. waaw moom tey fiq lañ am ak. musal ak xadis. Mhm. moom am ban moo gën a yomb ci yow ci matières yi muy joxe yëpp. matières yi muy jox ñu ngi si sant yàlla bu baax nag. waaw fexe mhm. beeg musal ak yëpp ñu ngi si sant nikaax nag neex na. waaw nikaax macha allah. <laughs> lu tax mu lay jël sax lu tax mu lay neex. <laughs> waaw amaguñ tamit te dinañu jàngal <laughs> euh, ëllëg buñ duggee si sëy mën koo waajal bu baax a baax a baax. aywa très bien euh, ñu la jàngatloon tey importance bi école baabu salaam am fii ci digg dakaar mhm. yow ban importance ngay jox baabu Salam. waaw Babou Salam importance importance bu rëy a rëy lañ koy jox. Euh, ndax dafa féetewu di yar xale yi di leen jàngal seen diine di leen xamal àdduna ba ñu lay wan ni yow waroo ñëwee kenn koo xamante ni euh, jàng na français. waaw ñu lay wax diine ban importance la am ci dundu doomu aadama bi. nga xamal sa bopp bu baax yow mi jàng diine. xam fan ngay teg sa tànk bañ a ñëwee kenn. importance boobu mu ñu koy ba pare di jubal tamit xale yi. xale yi nga xamante ni euh, dañoo nekk ci daara ji. Mm-hmm. bu rek. sa wàllu àdduna nga xam ni nga koy doxalee sa wàllu dina tamit nga xam ni nga koy doxalee. kon Babou Salam day jàngale day yar. Oh, hmm. aywa très bien léegi du ñàkk xay na koñ bi nga dëkk am nga fa copain boo xam ni da ngay xëy gàddu saak jëm Babou Salam. Hmm. moom mu xëy gàddu saak jëm lycée wala université. Hmm. est-ce que bu boobaa di nga fier yow. pour sol tenue Babou Salam rombanteeg moom dem. waaw waaw pas copain sax mais suñu kër sax. waaw damay am ay mag yoo xam ni dañuy jàng français. man may jàng mais fierté am Euh, samay waajur dugal ma ci diine ji mm. ñoom it dañu am ferte bu rëy ba des fois dañ ma koy wax sax waaw ndax euh, dara neexul tamit dara dàqul nga nekk ci islam benn masala bu seen waa kër am rek ñëw laaj la ko waaw loolu mbégte bu rëy rëy lañ ci am mm-hmm. ca loolu mas na laa daal waaw mas nañoo daal waaw mm-hmm. kon yow pare nga pour nekk imam wala jàppale leen quelque part waaw incha allah euh, bëgg nañoo jàng daal ba ëllëg képp am lu la lën sa mbiru diine rek boo ñu ko laajee ñu mën la jox tontu incha allah. Mhm. Euh, ca tam matière scientifique yi yooyu macha allah tam doo ko bàyyi ginnaaw. parce que jamono moo laaj. Euh, lu ci mel ni ordinateur yeeg yu demee noonu nga xam ni ci kanam tuuti ku ko amul. Mhm. ku ci xamul dara euh, nekkoo borom xam-xam est loolu tam yaa ngi ci bàyyi xel. waaw loolu incha allah loolu ñu ngi ciy bàyyi xel bu baax a baax ndax comme ni nga ko waxee léegi rek jamono ji moo laaj loolu comme que jamono joo ko laaj tamit dañ ciy dox ay jéego yu baax a baax pour mën a maîtriser lépp ndax boroom xam-xam ëllëg day soxla tamit nga maîtriser euh, li nga wax léegi wàllu internet rek wàllu matière scientifique yi ndax jamono ji toll na koo xamante ni lépp lu nga xamante ni mooy jëmal réew kanam rek scientifique yi bokk nañ ci li ci ëpp doole mm-hmm. ci wàllu développement aywa très bien sama sëriñ euh, sëriñ Babacar Bater ah waaw ah, Babacar Bater waaw euh, pour ñu tëj waxtaan wi man ak yow Oustaz Lamine Sarr déggu la gisu la fi ne mm-hmm. tey ji boo ko doon wax ne ko yokkal ci baabu salaam dara pour yéen lan la yokk. waaw euh, ñu ngi ñu ngi koy sant nag. waxal lépp bu fi sant waxal lépp. waaw ñu ngi koy sant bu baax di ko di gërëm. waaw macha allah di ko sant bu baax di ko gërëm. Euh, ci financement ren. Mhm. jàngale bi seetlu na ñun ñëpp élèves yëpp sant nañ ko évolué na bu baax a baax. Mhm. Mhm. évolué na bu baax ci wàllu professeur yëpp. loolu tamit ñu koy sant bu baax. Mhm. maanaam dolli na daal dolli na waaw dolli na loolu mu yokk nag ñu koy sant bu baax baax loolu ndax soxla woon nañ ko. Mhm. waaw yokk boobu mu ci yokk ñu koy sant bu baax. sant nga ko ci yokk bi mhm. lu des. waaw lu des xanaa ñu. Euh, moom du la may zéro nekku fi. noonu nekk fi dëgg waxal ñu ko suñu mbokku élèves yi rek xam na lu des te man ñu daal ñu koy ñaanal daal lépp lu bon man ma wax li des. jërëjëf mbokk kon euh, docteur Lamine Sarr yal na yàlla fay la ci taxawaay bi yow ak équipe bi nga ko àndal euh, ci taxawu suñu rakk yi suñu jarbaat yi ngir lépp loo xam ne yaakaar nañ ko fii ci wàllu enseignement ñu am ko fi euh, waaye docteur Lamine ñi ngi lay ñaanal yàlla na yàlla gën a yaatal ba ñu fi yokk ba tey jii ku soxla woon salle multimédia boo ñëwee fii rek macha allah loo soxla da nga koy am cours informatique yeeg yu demee noonu loolu lépp macha allah waaye ba tey sax même ay cours à distance ñu koy jokkoo ay suyux yu mag ci biti loolu lépp itam euh, euh, man maa ngi koy bëgg pour sama rakk yi yal na yàlla yombalal la ko barke wala boobu neexu la. waaw boobu nañu macha wax ko ko waaw am na solo. Ah. ngi koy ñaan oustaz bu ko mënee wutal mu wutal ñu ko incha allah. <laughs> jërë ngeen jëf. <laughs> mbokk yi euh, dugg nañ ci beneen salle di beneen classe fekk fa nag ay gaay cheikh bi salaamaaleykum. waaleykum salaam. noo def maa fi. aywa classe bii ngay jàngee nu mu tudd. ci cinquième. cinquième yow yaay kan. man maay Pape Diakouta. très bien euh, cinquième bi fii ci Babou Salam est-ce que neex na. waaw neex na trop. kan moo leen di jàngal. Mouhamed Oustaz Mouhamed Sow ak Oustaz euh, Souley Sarr. est-ce moom mën naa maye zéro. non non. ku yaru du la may zéro. allez très bien euh, li ngeen fiy jàng at mi yëpp yow lan moo la ci gën a neex ban matière nga gën a bëgg ci sa xol. ah man lu ma gën a lu ma gën a neex si waxtaan waxtaan yonent yi. waxtaanu diine. waxtaanu diine. Mhm. parce que dañuy jàngal diine ak yar dañuy xelal lu baax. dañuy mhm. conseiller dañuy yar mhm. tamit. dañ leen di jàngal diine di leen conseiller di leen yar yow loolu boo jógee fii ci école bi dem sa koñ ah est-ce que yaay nekk exemple bi nga xam ne sa koñ yow la ñuy xool pour yaru. Ah, waaw parce ah. que dañ naa ma yow euh, franco ngay jàng yow yaa ñu war a conseiller yaa def itam dama leen di xelal tamit di leen ma jàngal fii rek dama leen jàngal fii. kon yow doo doo këpp caafu meeri koñ ba. non non ah <laughs> jërëjëf jërëjëf macha allah. waaw maa ngi lay ziar soxna si noo tudd. man Fatou ñu ngi lay ziar bu baax. Ah, fan ngay jàngee. fii Babou Salam. Babou Salam ban classe ngay def. classe cinquième. ah classe Mouhamed oustaz Mouhamed Saw ak oustaz Souley Sarr. macha allah euh, nan nga gisee njàngaleem Babou salaam euh, ci yéen fii ci Dakar. njàngale bi li liñ ci gis mooy yar ak teggin ak diine bu baax ndax bu ñu neexoon ñoom ñuy def leneen waaye dañ ñoo jàngal diine ak islaam ba fu ñu dem ñoo fay nekk exemple mhm. euh, yow lan moo tax nga taamu njàngaleem diine surtout ci côté franco arabe te jàngiwoo école lu tax nga taamu lool. parce topp sa diine dafa baax te ñoom dañ lay jàngal diine loo xam ne boo eggee ci yàlla doomu sa regretté. loolu lañ leen di ñaan di leen sant di leen gërëm nag ci ustaas yëpp. waaw mais loolu dëgg la mais yeewu ci àdduna tam baax na de est-ce que yow yeewu nga. yeewu naa bu baax arab dong ngay jàngale yeewu nga. yeewu naa bu baax. ak kon ñeewoo ñi jàng feneen. déedéet aywa looy ñaanal euh, docteur Lamine saar ak équipe bi koy jàppale ñëpp yore Babou Salam. yàlla bàyyi leen fi suñu kanam. ci kanam ak suñu ustaas suñu maam Ibrahima Sarr yàlla xaaree ko àjjana fi. daw ba fu ñu dem rek ñoom ñu nekk suñu exemplaire ndax fii ñoom ñoo doon suñu exemplaire ak ñoom fu ñu mënta nekk ñoo doon suñu exemplaire di leen ñaan di leen sant yéen nag di leen gërëm yéen ñu jógee ba cene ba mhm. jërëjëf euh, yëg nga ni ñu ngi waajal bis fii ci Babou Salam waaw yëg nañ ko ñu ngi waajal bu baax la set mai dimanche yow pare nga pare naa bu yàgg loo ci nar a indi ah lu ñu jox rek fay nañ bu yàgg ñun jox nañ ñu macha allah jërëjëf <laughs> jërë ngeen jëf euh, mbokk yi euh, génn nañ foofu dugg ci beneen classe oustaz salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. Euh, tur wi oustaz. Thierno Ka. ban classe nga yore. maa ngi yor nii euh, Sani Ihdadi. aywa très bien euh, moom ndax classe bu yomb la ci yow. Euh, Sani Ihdadi waaw taxu koo jafe nag. Mhm. taxu koo jafe parce que moo nekk ci diggu doom bi. Mhm. c'est-à-dire awal Ihdadi ak Salis Ihdadi xaw a jafe. awal mhm. Ihdadi bi jógee ci marxala ibtidaaya ñëw ci marxala Ihdadi ya day aajo beneen. affaire nga taxawaat ci. beneen waajal leen pour ñu mën a yéeg kon bu ñu ko déggee méngale ko tuuteeg fële dañ ah. naan cinquième wala quatrième xëy na. waaw waaw cinquième wala quatrième. très bien oustaz. Euh, ñoom est-ce que ñu ngi comprendre. est que ñu ngi comprendre comprendre leçon yi waaw de ñi ngi def suñu waajib waaw ñi ngi def li nga xam ne moom lañ jàpp ne mhm. euh, buñ ko defee danañ comprendre ñi ngi bind ñi ngi sarx ñi leen wax ne ku comprendre na laaj ci ñu ni mel daal euh, ñi ngi am nañ coo xam ne macha allah comprendre nañ très bu ñu jàngatee tuuti taxawaayu école Babou Salam ci système éducatif bu Sénégal ñu jàngat loola ko tey nan nga koy jàngatee wax dëgg yàlla euh, xam nañu école yu bëri mais école bi fekk nañ fi ñu am tarbiya islamiya bu baax a baax boo xam ne dafa am ay dawaabit maanaam euh, mu jaamale wuñ ci maanaam ku ñëw am noo mel sa suluk am nu mel damay gis ñu euh, dàq la wala ñu teg la ay punition yoo xam ne te loolu mooy yar macha allah daf li ñuy tuddee al iqaab wa thawaab ku nga xam ne daf na lu mu war a daf gars dañ koy neexal kii deful li mu war a def ñu wan ko ne ko li nga def baaxul yaa ngi dégg jéem koo yar jéem koo jubanti macha allah. Hmm. gis naa ne jigéen ñi fi dugg yëpp dañuy muuru dañuy sol nañu war a solo góor ñi ku ci yor comportement boo xam ne jaadu dañ naan dama changé yére wala yu mel noonu. Hmm. Hmm. macha allah loolu ñu ngi ciy dox li buñ kon jàpp nga ni xale bu jaar fii ci école Babou Salam sa avenir ëllëg mën nga ko assuré. bu baax a baax loolu am nañ ci yaakaar bu baax a baax. surtout ci côté diine ak ci côté jikko wax am nañ ci yaakaar bu baax. Mhm. Euh, lan ngay ñaanal direction bi rawatina docteur euh, Lamine Sarr. Lamine Sarr di leen ñaanal yàlla dafa leen tawfiix dafa leen taysir yokk seen tawfiix ak seen taysir ak seen sadaat. Mhm. Euh, may leen najaax baaxir incha allah mushriq yàlla man loolu yàlla ko amin incha allah incha allah jërëjëf kon mën nañoo dugg ci biir classe bi aywa très bien tànn maa salaamaaleykum waaleykum salaam waaw maa ngi lay ziyaara de gaañ xayma ma toog bokk am da nga defe ne jàngee fii salaamaaleykum. waaleykum salaam yow moom xàmmee naa la moom xalifa Sarr. ah doomu kan xoolal Sénégal doomu kan. alxaaji Ngagne Demba Sarr. Mhm. ay très bien yaa ngi jàngi fii ci Babou salaam macha allah ah, ndax njàng mi yomb na ci yow. yomb na trop kay. Mhm. Ah, mu mel ni ñu ngi waajal bis fii ci Babou salaam pour gan ñi ñëw yéen ngeen génne li ngeen xam ne moom ngeen di jàng ah, bis boobu kañ la ak ndax pare nga. bis boobu mi ngi tombé dimanche. le 7 mars le 7 mai. 2017. Mhm. Mhm. ñu ngi koy waajal bu baax a baax te pare nañ. bis boobu rek mhm. la xaar mu ñëw incha allah. kan nga bëgg mu ñëw ci yow ci bis bi. Ah, kan nga ci invité xoolal fee nga wax ñu ngi invité suñu mbokk yëpp. Mhm. di invité suñu waajur ñun ñëpp. Mhm. di ñaan ñoom ñëpp ku nekk ñun ñu teew ci bis bi. Mhm. ñu jàppale ñu bu baax incha allah. incha allah euh, jërëjëf xalifa euh, Sarr di doomu Serigne ngeen Demba Sarr euh, gis ngeen ko yar bi ngeen ko xamee woon rek macha allah boobu dafa dolli ko fii waaye wàññikuwul nee na ñu ngi woo ñëpp kon ma firil ko ko tuuti wax ni. kon ñi ngi wootam borom na baax te mooy waajuram di Serigne Demba Sarr mi nga xam ni euh, fu mu dégg programme rek nee na la ma fa yóbbu mooy na baax kon nit ñi nañu àndandoo jàppale suñu doom yi nga xam ni suñu amee bis macha allah dinañ bëgg a gestu nag gis seeni waajur loolu tam am na solo appel boobu la xalifa def kon appel bi dégg nañ ko incha allah dinañ bàyyi xel le set bu soobee la mbokk yi dañuy jàll feneen ba xam lan moo fa xew tey ñi ngi école franco-arabe Babou ci Pikine ñuy waajal seen bis bi nga xam ne incha allahu soreetul euh, dafa war a tombe rek ak dimanche 7 mai 2017 ñu war koo def fii ñu ko daan defee ci loolu nag Thiénaba TV ci la jógee doxantu ñëw fas yéene dugg xool liggéey bi fan la toll ñu duggaat ci benn classe fekk fii oustaz salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala. oustaz tur wi nan la. El Hadj Malick Ndiaye. El Hadj Malick. Ndiaye Ndiaye très bien nga yore benn classe fii. waaw fii classe bi la wax si. ëllëg daal mhm. mu nekk classe boo xam ni gannaaw bu ñu defee certificat. Mhm. moom moo si topp. Mhm. si classe boobu lañu nekkee nii féetewoo ak ñoom fii si béréb bi. Ah, très mën nañoo am tuuti lan mooy sa emploi du temps ak ñoom yan matière exactement nga leen di leen jox. waaw alhamdulilah ñoom ñi jàng ak ñoom maanaam si altine ak talaata ak mercredi waaye suñu programme ak ñoom si wàll matière mooy tafsir ak fiqh ak sarf. ak tawxiid ñeent yooyu lañ am programme ak ñoom. Mm-hmm. ñu nekk ndongo yoo xam ni macha allah nag si programme boobu taxawee nañ ko bu baax macha allah. aywa euh, sarf defe na mooy conjugaison ah. mm-hmm. am de ci waa tubaab yi. kan moo ci gën a ay ci classe bi ci sarf. <laughs> xool leen ñuy daw Fatuma Ñang am ñangeen dina aay ci sarf. waaw ñoom de macha allah koo si koo ak ak palent allez très ñu dem sa relation ak élèves yi lan la. nan nga demee ak ñoom Euh, ratax na lool nag relation boobu te amuñu benn ak problème ak ñoom waaw ñoom ay ñoo xam ne ñu respecté lañ ñu leen di jàngal te boo joxee respect moom oustaz day gën a sawar ak jox la cër rawatina tamit di la jox li nga xam ni moom mooy jàngal la dars nga ñëw tarika na mu waree tamit buñ nee muraaja tamit nga ñëw ñu lay laaj ci question ngay tontu boobu day neex oustaz loolu te am na ñoo xam ni taxawaay boobu moom macha allah. gëm nañ ko lool ñoom ñu ngi jàng jàng bu am solo. fu leen laajee danañ ton tontu lu am solo macha allah. kon ñu ñaan ñeneen ñi def ni ñoom. waaw waaw am na si ñoo xam nag moom. Mhm. loolu moom war nañ góorgóorlu bu baax a baax si roylu ñooñu. Mhm. waaye li gën a bari. Mhm. mooy respect bi am na jàng bi am na moom macha allah. kon niveau bi baax na kon niveau bi tamit macha allah non ulaay daal ñëpp xëy mën nañu kenn kenn kenn nekkul di si ngam ràññee nañ ko. ci mhm. école bi laa wax. Mhm. ñii xale yi génération bi mhm. ñoo gën a nekk am niveau. si si école bi ren. macha allah ma am si indaar yi daal. aywa très bien euh, oustaz euh, pour ñu jeexal bàyyi la nga eggale sa cours. mooy tey jii boo ñibbee sa koñ. Euh, am sa benn xarit bu la pose question laaj la ni la waaw yow. lan moo tax nga tànn franco arabe di fa jàngalee ji. waaye précisément lu tax nga tànn baabu Salam lan nga gis si Babou Salam ba di fa jàngalee loo koy tontu. ay asbaab la yu bëree bëri euh, maanaam yoo xam ne su koy euh, mën a wax lépp tënk ko waaye si gàttal. Euh, baabu Salaam dafa nekk wóllare gi yàgg si diggante suñuy waajur ak ki nga xam moo sos Baabu Salaam. te te rawatina tamit béréb boo xam ni macha allah. kan mooy sa waajur. El Njawar Ndiaye. El Njawar Ndiaye. waaw ah, loolu dina am ñu ko xam. waaw. Mhm. te tamit béréb bi. Mhm. Euh, xam nañu ku ne xam na ni. Mhm. si Sénégal béréb bu yàgg la si cosaan. Mhm. waaw loolu moom yàgg na lool. depuis 1960 waaw 1960 ba tey du ñaari fan yu ñetti fan. Mhm. loolu nag lu ñu war a gën a dekkil la ñun ñi nga xam ne ñooy relève yi di gën a dundalaat béréb bi te béréb bi ku ne xam ne ni daaral la boo xam ni euh, maanaam séntiwul lenn suñ ko seetloo ñoom jaamu yàlla rek lañ xool si béréb bi lépp luñ si def tamit ñu ngi si xool yàlla. ku xool daara ji xam ne daara ji séntiwul lenn loo xam ni dafa jóge si ñi nga xam ne ñooy ndongo yi mm-hmm. ndaxte lépp am na si ay li nga xam ni mooy social lu bare bare bari mm-hmm. te loolu yëpp jaamu yàlla lañ si gis te di ñaanal béréb bi daal yàlla wattu ko sàmb ko sàmb ñi nga xam ñoo fi jàng yàlla may leen ndam sori leen ñun daal bañ jàng jee ba ñëw taamu nañ ko tànn nañ ko te tamit kontaan nañ si nekk nañ fi ñaari at waaye rëccuñu ko daal macha ay ñoo xam ni dañoo war def émission si hmm. ba bu ko defee ñoom tamit ñu présente leen fu mu toll nii si émission bu ñu war a def. si ñett mbokk yoo xam ne war nañ taxawee émission boobu. émission mel ni ku yor télé. waaw loolu am na fii ci Babou Salam incha allah. acca dinañ comme bi ngay def nii. ah bon <laughs> ah très bien loolu moom dinañ sawar ko ndekete Moussa Ndiambé Guèye suñuy naataangoo am nañu fi di suñuy collègues euh, ay journalistes élèves. loolu nag man li ma koy dégg bariwul de journaliste élève fii ci franco arabe Babou Salam ndekete baabu salaam yemul rek ci jàngal la diine waaye dina la yees sa wàllu àdduna dina la gunge ci ab yar di yaru islaam waaye bu paree ci yewet incha allah feneen foo dem rek di nga fa mën a am njariñ waaye wax na ko 62 lañ ko sos kon Babou salaam tey am na juróom fukkiyaat ak juróom kon dey xale ba judd woon màgg na lool léegi magum jëmm la macha allah mi ngi ay cadre yàlla na ko yàlla gën a jàppale aywa ñu présenté ñu suñuy naataango ba xam maak Moussa ñooñu ñu làq waxam déet. Euh, mbokk yi kon euh, ba ñoo génn ci classe bi euh, oustaz wax nañu ni ndekete ay journaliste ngi fi di fi jànge dañoo war a présenter ab émission ca bis ba xanaa ñu bàyyi leen ñu mosal ñu ci tuuti rek li ci des ñu denc ko incha allah ba le 7 mai soxna si kon aywa seen émission ngoog. jërëjëf oustaz baada auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi a rahim alhamdulillahi al ahadu samad wasalaatu wasalaamu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbi amma baad assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi nuy soppey radio télévision Thiénaba TV le tey dimanche 7 mai 2007 seen émission xam sa diine mbokk yi tey nag ñu tànnoon thème bu am solo mooy bokkaale ak bonbon yu ci nekk ñu dalaloon ci nag ay gan yu am solo ku ci mel ni oustaz Mor ak Seyda Fat Seck ñu dox al oustaz Mor yàlla julli ci yonent bi. soppee ñu ngi nuyu soppee rajo télévision Thiénaba TV di am kontaan si dala bi ñu daal si émission bi. jërëjëf oustaz nuyoo bi rafet na ñu jox Seyda Fat Seck mu nuyoo. salaamaaleykum wa rahmatullah. alhamdulilah wasalaatu wasalaam ala sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam amma baad salaamu aleykum kon ni leen ko waxee woon la ngi fii seen télévision Thiénaba TV ba tey seen émission xam sa diine thème bi moo nekkoon bokkaale ak danger yi ci nekk ñu ci nag ay laaj yu am solo suñu laaj bu njëkk nag ñu koy jëmale ci Oustaz Mor Cissé lan mooy ñaata xaaju bokkaale ñoo am. Euh, jërëgeen jëf euh, mbokk yi ku bëgg a gis tontu bi doxantul dimanche 7 euh, mai 2017 fii ci Babou Salam su boobaa oustaz Mor Cissé mu ndaw dana la tontu ni nga ko bëggee waaye yaa Seyda soxna Fatou dana la tont ni nga ko bëggee su boobaa ki nga xam ne moom mooy présenté émission bi tam def commentaire am tëj émission bi mbokk yi yéen ñi bëgg a dégg tontu bi du ngeen ko dégg léegi le 7 rek incha allah salaamaaleykum. waaleykum euh, soxna si maa ngi lay ziar euh, ñu ngi la fekk fii ci benn euh, ci classe yi d'abord noo tudd ak ban classe ngay def. waaw maa ngi tudd Mariam Touré di jàngee fii ci école bi di def classe su Salis Sanawé. Mhm, école Babou Salam école Babou Salam. ndax yëg nga ni ñu ngi waajal fête war ko def. waaw fête bi moom ñu ngi koy waajal waajal bu rëy. Ah. parce que yéen génnee xam-xam. Mhm. ak lépp loo xam ne jot nañ kaa liggéey ci année bi yëpp. nga fàttali ñu kañ lay doon. Hmm? kañ lay doon nga fàttali ñu. aywa le 7 mai. le 7 mai euh, très bien kon mu mel ni yéen seen classe am ngeen lu ngeen waajal wan ko woon parents yi. waaw am na que mën nga ñu cee musal tuuti. waaw mën nañu cee musal tuuti. aywa bisimilah ñu déglu la kon. ñu ngi ciy wax bépp xeet bu bëgg a dund dund bu dal te dog ci buumu njaam foow mu gëm boppam te liggéey ngir mën a dajeek dogulu boroomam te li mu guddi guddi bët dina set mhm. coono lu mu metti metti ci jeex rekk lay mujje te buumu njaam kenn du ci dog kenn du ci dee ba faw ci kaw ñu gëm suñu bopp ak suñu der bu ñuul bii te dund ñaar rekk la mu neex walla mu naqari te benn du ci sax te yàlla am na ku nekk lum la may am na tim loo bëgg te yàlla day fay yéene ju fi xol leboon ma fàttali leen tuuti. soxna si bu ñu ko fàttali bàyyi ko ba le sept incha allah képp ku bëgg a xam li nga ko bëgg a fàttali na doxantu ñëw yaakaar naa loolu dina la neex. waaw lu neex du ku bëgg xam lu la bëgg a fàttali rendez-vous la incha allah euh, ndax yow rek yaa war a présenté taalif am na ñeneen. am na sama beneen naataango bu ma war a kiyal mbir mi. lu mu war a faram fàcc ci ci ci ci arab ah ci arab mhm. ah, kon yow da ngay wax ci wolof moom wax ci arab ci arab kon fii danga fi jàng dégg arab lool ba mën cee def discours ci mbooloo mhm. aha mhm. allah lan ngay ñaanal école bi nag maa ngi ñaanal école bi doon école yoo xam ne yu gën a mag la ci Sénégal ñaan yàlla école bi sax ba foofu ak directeur bi ak ñu fi nekk ñëpp di ñaan yàlla ñi def bac ñëpp yàlla may leen na jaaxan baaxiran incha allah. Ah, defe naa ci nga bokk yow. incha allah man may jiitu kenn du fàtte sa bopp. aywa euh, macha allah ñu ngi la koy ñaanal yàlla yàlla defal la bac bu sedd guy yow tamit euh, yaakaar naa fier nga ci jànge Babou Salam. ah kontaan naa ci trop porte drapeau Babou Salam. macha allah incha allah jëf euh, mbokk yi kon am nañu mbégte lool bi ñu tàbbee Babou salaam ngir waajal bis bu rëy bi nga xam ne moom lañu jub si te mooy. dimanche 7 euh, mai 2017 ñu war ko ànd ak docteur Lamine Sarr ak équipe yi nga xam ne ñoom ñoo koy jàppale di ñoo xam ne ñu xereñ lañ macha allah te te sawar euh, su ko defee kon mbégte mi ñu njëkk am mooy dugg gi ñu dugg ci classe yi am féexuk fenn fu ne ñu dem fa xool liggéey bi fan la toll ñu séq waxtaan ak ña nga xam ne ñoom la direction wàcce liggéey bi ci ñoom. waaye ba ci élèves yi nga xam ne sax ñoom ñoo fiy jànge eh, kenn ku nekk génne sa mbégte eh, ki mujj si ñoom di soxna si nga xam ni moom moo daaneel kàddoom wax ni sax ren incha allahu ci lay def bac mook ay moroomam ñu ñaanal leen eh, bac bu sedd guy te muy ndami baabu salaam di wéy di wéy li ci des bon kon mooy mbokk yi ñu séq ak docteur Lamine saar waxtaan mu gën a yaatal woote bi jëmale ko ci journée le sept bii nga xam ni moom la ñuy waajal Mhm. Sénégal ku gis li fi tuuru ren ci direct ni mu bare mhm, mhm, accident yi ni mu bare accident yi xew ci biir kër yi ni mu bare loolu lépp nag ñu ni kon al am nu matlabun diin yun wàllu sécurité ak jàmm lu diine sàkku la ñëpp war cee taxaw waaye tamit nécessité la aajo la boo xam ni dunduk doomu aadama da ko soxla la sécurité est une exigence dans la religion mhm. et une nécessité pour l'émergence mhm. ñu bëgg ren li tax ñu wàññi xale yi mooy dañoo bëgg xale yi jàll yëpp mbooleem thème yi indi mhm. sketch yi théâtre yi xadis yi xale yi jàng lépp na versé wu ci wàllu la mooy may réew mi jàmm maanaam le message global de la conférence waaw kay na jëwu ci jàmm na jëwu ci na jëm ci jàmm ak sécurité ba tax ñu bëgg xale yi ren. Mhm. xadis yi leen jox yëpp. Mhm. ci islaam ni mu aayee lépp lu mën a xañ nit ñi jàmm ak nu mu santaane luy indi jàmm. Mhm. xadis yi wax ci wàllu woowu. moom lañ séddale xale yi. macha allah jumtukaay yu bees yi. yi xew léegi. ci wàllu réseaux sociaux yeeg. yu demee ni ki noonu. surtout xale yi war a préparer def xale yi sax ren dañoo bëgg a def mel ni dañoo nekk ci émission rajo. ren xale yi ñu organisé tabu yoo xam ne genre émission lay nekk. yoo xamante ni xale yi sax wala wala ma bàyyi noonu rek. waaw yooyu fu ñu ko jàngee oustaz fu ñu jàngee yooyu. yéen a ngi bis bari ndax xale yi sax dañ ma ne. fan lañ ko jàngee laa laa bëgg a xam parce que tam fii itam du école journalisme bari ay bagages. maanaam xale yi nu <laughs> nu mu mën a fexe ba mën a def émission te fekk mi ngi Babou Salam. waaw xale yi day comme moom macha allah dañoo bari léeg-léeg euh, lu ñuy liggéey ay ak ñoom. Mhm. dañu bari ay domaines yu ñuy travailler. Mhm. ak ñoom. Mhm. ba tax na xam naa ni jombul ñoom xam na. te te lépp fii lay xewee. xam naa kon daal Babou Salam ak ay secret. ak ay secret aywa bisimilah oustaz. kon particulier particularité boobu. moo am moo am ren. bëgg kon xale yooyu di jàll. Mhm. ñooy jàllale seen morom yëpp. Mhm. waaye tamit euh, dépassement de soi bi xale yi am. waaw xale yëpp solu jënd seen yére ba pare. ñu la waaye nag. li nga bëggoon a wax tey sa morom mii moo la koy waxal. wallaay nga nangu ko. nga nangu ko sa parent nangule la ko sa parent nangule la ko. Mhm. loolu tey moo ñu bégloo ñu tamit. macha ci xale yi. xam mhm. nga nit ku nekk. Mhm. nga nangu ni sa bu waxee waxalaale la la. bu defee moo la defaaleel dafa am solo. te mooy jàngaleem lislaam xam nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu toogee ak saxaaba yi. ñuy waxtaan. yàlla wàcce julli. ñu ne d' accord isa salaam dem na kaw asamaan comme ci weer yu ñu génn muy rajab yàlla jox na ko julli leen bu ñu waree wootante julli nan la ñuy wootantee saxaaba yu bari joxe ay proposition ñii ni bu jotee dee dal nañ tëgg ndënd waaw ñëpp ñëw mhm. ñii nii nañ tëgg ab tabala ñii nii na am ku jug wër yéene ñii ni nañ tëgg ab cloche comme cloche yooyu di nekk ci église yi mhm. wala école bu nekk bu nekk kenn kenn ñëpp ñëw mhm. waaye daal ñu réunion réunion ba dañoo ba tas dëppoo wuñ ci dara Hachim ne leen nañ dem ba suba ñu dem tëri ba suba ci guddi ga la benn saxaaba muy Abdullahi ibnu Zayd gént yàlla jàngal ko baat yi baatu nodd yi te am te muy allahu akbar allahu bar ba mu jeex loolu tey ku ma doonoon tey ci ñun ñi tey danga naa ah, lii nag moom sama mbiru boppa waaw waaw sama sekkara maa ko gént bàyyi ak doom rek <laughs> doom ak sët maa ko gént waaye mu egg si la koy salam ñëpp rafetlu ko mhm. waaye sax mu ñëw sax sax sax ni ko allimuhu li bilaal fa innahu anda min ka sawtan jàngal ko bilaal mhm. ndax moo la dàq baat mhm. moom mooy nodd te moom mokkal na ko ba pare te moom mokkal na ko ba pare ci géntam ñu ne ko mbaay nag mbir mi cëru bilaal la jox ko bilaal ndax moo la dàq baat mu jàngal ko ko bilaal ñëw. sans gêne ko nodd sans gêne moo amu ci benn gêne. amu ci benn problème. yëg-yëg boobu. Mhm. ci ci xale yi. Mhm. ñu leen yéen tey ren ñi dong ñu ñooy présenté. Mhm. ñoom ñëpp nangu ko. te nangoo ñëw boo demee ci màgg yi jàpp tey ñoom ñëpp. ñoo war a jàll nañ daan def lañ war a def. lañ war a def te day soppeeku ñëpp wax nañ leen ni mbir mi ren nii la demee. ndax ren dañoo bëgg gérer temps bi ak it bëgg a teel a pare ndax it dañ fi naa dem ba guddee. Mhm. nee bëgg naa léegi façon boo xamante ni. Mhm. ay thèmes mu xam-xam lañ bëgg a développé. Mhm. ay thèmes xam benn fas ko xam ci beneen anam yoo xam ay thèmes mu xam-xam lañ jox xale yi ñu développé ko. ngir nit ñi mën fi jëlee ay njàngat yoo xam ni. buñ fi jógee mu am lu mu leen jariñ ci seenu dund. loolu daal bokk na ci particularité bi sub ren bi ak nag yeneen surprise defe naa ni ren amoon nañu surprise u sang ni yow. ah waaw daaw. daaw daaw man maa ngi ko doon bëgg waaye nag bu ren bi moom euh, yenn jàngalekat yi sax boog. Hmm. xamuñu surprise rek ren bi lan la. xale yi dañ ko nëbb rek. dañ ko nëbb ñu koy liggéey dañuy daal bu bi moom kenn du ko wax. Hmm. kenn du ko fi moom daal nañ bàyyi rek ba mu jot. ba bis ba incha allah yow sax xam naa ne am na ci lu la ci gaa yi war a liggéey loo léegi xaw ma ndax na ci lu ci na lu ci gaa yi bëgg a liggéey loo léegi. xam naa ne léegi oustaz bala ñoo Euh, wax nga ma ca départ ba nii mm. euh, ci préparation yi taxawal ngeen ay commission mm. mais lépp dafa mel dañ laa seppi bu baax a baax a baax mm. même ci biir programme bi déggaguma la ci oustaz foo ci nara a taxaw <laughs> waaw incha man fañ ci daan daan taxaw rek mm-hmm. ndax mbir mi moom day ngay mujj toll foo xam ni mm-hmm. ba ngay jekki-jekki sax sumi sa xaftaan mm-hmm. sol sa pantalon wala sa blouson ànd xale yi ci biir liggéey bi doo ko tey waaw waaw waaw surtout. parce que sax daan naa la gis ci biir bâche bi. Ah. daanaka ngay dem sax bay wog loxoy mbubb. waaw mu wóor ma ne kii moom fàtte na ne fi mu. alhamdulilah mooy directeur. <laughs> waaye daal xam naa ne xale yi. Uh-huh. foofu daal li ñu bëgg mu daal naa noppalu bu baax a baax a baax ren. Mm-hmm, mm-hmm. daal te préparé daal man sama discours bu baax a baax a baax a baax. Mm-hmm. lépp luy liggéey daal ñu ne ma daal toogal. xalaatal wooteel ni dem def leen li def leen li def leen li waaye daal. fa ma fañ ca nekkoon daal. dañoo bëgg daal ma gën leen a féetewoo ci wàllu xel ak wàllu incha allah euh, jërëjëf euh, yal na yàlla dogal ko te yombal ko mbokk yi kon yéen a ngi seetaan Thiénaba TV ñu nekk fii ci baabu salaam toog ak docteur lamin Sarr mi nga xam ni macha allah moom moo nekk ci bopp liggéeyu Babou salaam ren nag ñuy waajal conférence bi ñu daan amal. ñu jàpp ko dimanche 7 mai 2017 mu war a tàmbali nag 9h euh, incha allah euh, dégg ngeen lim développé ci ay surprise dégg ngeen li nga xam ni euh, war naa jar ku ne jóg farlu teel a ñëw oustaz sax foofu lañ jëm à partir de 9h defe naa ngeen wax ci la ñu war a tàmbali kon dina yell ñu xam programme bi dimbali ci kii seetaan programme bi bi bi tartib ci toftale nan la war a toppante ba keroog ñu yëkkati jotaay. incha allah programme bi 9h lañ ko bëgg mu tàmbali. xale yi danañu départ fële école huit jël euh, tali karo bi ñëw dugg si dugg si ba nag alhamdulilah ñu ko daan fekke moom macha allah xam na dugg si ba ah, waaw na muy mel ah, dugg par group par groupe mbaa ren loolu duñ ñu ko xañ incha allah duñ leen ko xañ loolu sax moo tax sax <laughs> ndax toujours xale yi daan waajal lu rëy ah. te temps bi ñu ko war a présenté duñ ko duñ ko am bu mhm. loolu sax bokk na tamit ci li tax ñu wàññi xale yi tari mhm. ndax kenn ku nekk la nga waajaloon mhm. nga man koo joxe ba mu mat ci loolu sax moo tax sax ñu bëgg ren ñaari dugg la ñuy def. ñaari dañuy dugg suba. Mhm. dugg ngoon. waaw ren xale dañu bëgg. loolu euh, loolu la. dugg suba <laughs> bu ngoonee tamit. Mhm. am équipe boo xamante ni mooy dugg ngir woote biñ daan woon ni dellu dellusi leen ci baas bi. Mhm. amul takku rajo di dellusi leen ci baas bi. dugub ngoon bi. boo ko nit ñi yéegee rek. ñooy dawal seen bopp daal di dugg si. te te dugg boo xam ne borom daa añ. ba suur macha allah <laughs> moom lañ léegi bu ñu xale yi duggee. ba noppi. Mm. Euh, ñu jox benn xale mu jàng alquranul karim. Ah, comme ak ubbe. Mhm. jox suñu bàb Murtada Seck tamit mu ñaan comme nañ ko daan mhm. defee. Mhm. ba bu loolu jàllee discours directeur bi. daal daal jàll. mooy docteur Lamine yow ci sa bopp. taala <laughs> bu loolu jàllee. tooyal xol yi tuuti ci lenn ci alquraanu alkarim xale yi mhm. dem ci tuuti. Mhm. am tamit lu ñu mën a wane. Mhm. waaye xam naa ni foofa ak yenn kàddu yu tuuti yu ndaw. defe naa ni julli day di jot. bu ñu jullee incha taala dalal gan ñi yóbbu leen ci barab ba ñuy war a dal. def yëfi soween yi yëfi caameen yi mm-hmm. buñ ci paree mm-hmm. euh, comme ni ma sànq xale yi comme dugub bi ñu duggoon suba mm-hmm. euh, duggaat dugub ngoon bu ñu dugg see dugg si ngoon bu ñu eggalee nag euh, dugg si dugg continué waat suñ programme ak xale yi war a way ak taalif yi ak tari yi ñu war tari def table ronde bi tamit. ci ngoon gi lay war a ne. Mm-hmm. émission rajo bi ci ngoon gi lay war a ne. Mm-hmm. émission yi sax dina am woote comme ni nit ñi di wootee. Mm-hmm. di dugg. waaw di laaj mbir yoo xamante ni ci dëkk bi. <laughs> lay aju man man nañoo xam numéro serveur bi. wala ba tey loolu ci lii. <laughs> ba tey ci lii <laughs> mi ngi fekk xale yi di waajal buñ ca yeggee. Uh-huh. Euh, bu loolu weesoo. dina am tamit ñu jox gan yi fi teew ndax dinañ séentu ay autorité danañ séentu ay kilifa. Mm-hmm, mm-hmm. yoo xamante ni dinañ fi teew. Mm-hmm. kilifa yooyu jox leen ay kàddu. Euh, bu ñu leen joxee ay kàddu euh, après joxe diplôme yi. ak neexalu xale yi. après nag daal di joxe benn sketch ak surprise de euh, bi nga xamante ni moom la xale yi di waajal. nga xam ne boobu daal lañu ubbee waaye du sangu néew waaye tamit. <laughs> Ah, nañ bàyyi ba booba daal <laughs> incha allah <laughs> taala eh, jërëjëf mbokk yi waaye jërëjëf eh, docteur lamin Sarr macha allah eh, kon gis ngeen ko bu ñu jàngatee ay waxam mais xool ci kanamam rek dañuy xam ne moom ak équipe bi nga xam ne ñoom ñooy waajal bis bi pare nañu ngir teeru gan ñi pare nañu ngir bëggal nit ñi alquran mais pare nañ ngir li islam di def ci gox bu mu samp loolu ñoom it ñu wane ko te yaatu set dalloo ñëpp fas yéene na bégal te lépp tegu ci kaw diine eh, yal na yàlla yóbbuñu ca barki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te lépp liñ ci yéenee def programme bi bañ a xat bañ génne lépp eh, bu ngeen seetloo nee na ren eh, seetlu nañu sunu bopp ni sunu xër ak bëggoon kenn ku ne ñu jox la sa cër rek moo doon tax ñuy dem ba ay 22 heures muy mujj di guddi te xam nga loolu euh, jamono laajatu ko euh, thème bi sax obligé ñu ñu ñu doxe li thème bi laaj te mooy sécurité euh, sécurité nag laajul dox guddi kon bëgg nañ bala moo guddi rek incha allah ñu yëkkati jataay bi kenn ku ne dellu fa nga jóge woon ci jàmm ak salaam yàlla na ko yàlla defee noonu kon oustaz yaakaar naa ñi ngi ci sunu catu waxtaan laaj bu mujj bi nag dafay nekk diggante daaw ak ren Euh, lan moo fi dolli ko ci daara ji bu fekkee am na. waaw diggante daaw ak ren li nga xam ni dolliku na fi liñ ci ëppal solo mooy confiance bi parents yi am ci ñun. Hmm. te mu dolliku. c'est important. confiance googu wax dëgg yàlla te mënuñu ko fay. Hmm. ndax nit ku la xool ba yëkkati doomam jox la ko. Hmm. Oh, nga yëg ak nga ñàkk yëg. mooy wax na la ci xolam ni su ma sañoon sama doom ji mel ni yow. wallaay te loolu kenn mënu ko fay. dëgg la. Mhm. kon confiance boobu yokkute googu. Mhm. Euh, mi ngi feeñe ci xale yi nga xam ni yokku nañu ci daara ji loolu kon yokkute confiance su parents yi mooy li nga xam ni moo ko waral. Mhm. Euh, leneen li ci des mooy am na ay toujours dañuy góorgóorlu di gën a équipé waat daara ji. ndax bëgg ba lépp nekk classe yëpp ñu karle ko classe yëpp ñu occupé ko ak ay table banc mm-hmm. loolu nag chaque année yu ciy dox par nànk-nànk ngi comme doole ji bariwul mm-hmm. at bu jot rek ñu seet li nga xamante ne dañ ko ci mën a yokk yokk ko ci mm-hmm. waaye li ci ëpp solo mooy euh, daara internat bi nga xam ni mi ngi nekkoon ci kaw waaw te ñu nekkoon daanaka ci ñi ci juróomi classe rek euh, ci mois de mars bi passé tuxu nañ ci beneen barab boo xam ne daara internat alquran bi dañ leen fa tuxal ber leen fa xam naa di ngeen wan nit ñi image bi ñu xool ko mhm. euh, ñu jël barab boo xamante ni R plus la mhm. euh, mu nekk ñetti niveau mhm. ak mbaar ca kaw ñu tuxal fa xale yi euh, donte nag nekkagul lu ñu moom waaye ñu ngi sant Alpha bi nga xamante ni jàppale nañu ci woyofal ñu ko ba ñu man caa jot muy Alpha Gueye doomu Baye Jibi Gueye bu njooj mhm. ñu ngi ko sant bu baax a baax a baax euh, wax dëgg yàlla ci jàppandal gim ñu ci ko jàppandalal mhm. kon loolu daal nekk na yokkute goo xamante ni euh, ñi ci sant yàlla subhanahu wa mhm. yokkute goo xamante ni euh, mbégte la ci ñun fierté la ci ñun ndax dañoo yàgg bëgg pour ber daara internat bi ci barabu boppam. ba loola sotti. donte nag projet bi mooy dem ba am foo xamante day gën a yaatu foo xamante ni daara ji da koy moomoo boppam pour liggéey ko foo xamante ni euh, daara dina am ñu bëgg ko anam boo xamante ni dortuwaar yi muy tëddukaay yi day wuute ak jàngukaay yi. Mm-hmm. am fa seen jàkka am fa sax tamit seen i yaatu. loolu moom mooy projet bi nga xamante ni bëgg nañu ko ak ñoom mhm. euh, di ci ñaan yàlla subhanahu wa taala mu nangul ñu ko sottalal ñu ko waaye tamit di ci tàllal ñëpp loxo incha allah surtout ci wàllu suuf ak terrain ci euh, région Cap-Vert dakaar mhm. ak li ko wër incha allah loolu daal bokk na ci yokkute gi nga xamante ni mhm. yokkute la gu am ren ci daara ji. Eh, yar na ko yàlla sottal eh, oustaz ba la ñoo yëkkati jataay bi eh, wax naa la ko ci tàmbalik émission bi di mm. fu ne lañ dugg tey ci ci roq yi ndax wax dëgg yàlla ñi ñiñ fi fekk nga boole ñoo ñoom. Mm. ñoo ñu may opportunité bi ubbil ñu. Mm. oustaz seetlu biñ ci njëkk a def man ak sama nattaangoo yi mandal moo di xale boo ci taseel ci daara ji. xale bi dafa leer. te macha allah am ay lex <laughs> lan mooy secret baabu Salam. waaw xale yi de moom xam naa ne. Euh, léeg-léeg ma xam naa ni ma jug guddi di doxantu xam naa moom dinaa leen bàyyi su ma génnee ci jàkka ji gée daanaka romb leen ñuy reer waaye tamit jug guddi bàyyi boor min wi fekkaan leen ñu tiim <laughs> yëfi kii xaw ma nag loolu ci secret bi la xaw ma bokk am na ci nag alhamdulilah ay xale yoo xam ne it macha allah taala yàlla yàlla eggale leen te jàppale leen. amiin incha allah wax dëgg yàlla euh, xale yu am yaakaar lañu. Mhm. ndax it ñëpp mënuñoo bokk tolloo yem. Mhm. wax dëgg yàlla di ci xale yu tam xale yoo xam ne tamit wax dëgg yàlla. Mhm. xale yu nangoo jaamu yàlla lañ. allahu akbar xam nañ ko ci ñoom. Euh, te am na ci xale yoo xam te ne sax su ma tuddoon tey seen tur seen waajur ma nga biir cana ba googu. xale yu nangoo jug euh, ju guddi. di julli ak. di zikkar ak di jàmm yàlla subhaanahu wa taala te jàpp naa ne loolu mooy sax mooy li nga xamante ni mm-hmm. moo ëpp solo mm-hmm. euh, di la ñaan yàlla subhaanahu wa yàlla bu seytaane am ci ñoom yoon yàlla bu leen seytaane yàqal mm-hmm. yàlla nañu àgg ak jàmm amiin euh, loolu moom wax dëgg yàlla bokk na ci li nga xamante ni gën naa sedd suñu xol euh, ci xale yi kon daal secret Babou Salam mooy boo dundalee aw yaram ba mu nay da ngay dundal ruux tamit. loolu moom moo ëpp solo. allah euh, gis nañ fi tam euh, kenn ci sa équipe ñu fekk ko bett ko muy faj xale yi ndeysaan di leen jox garab. Mm-hmm. loolu tam dafa bokk ci li Babou Salam def wala. loolu moom bokk na ci euh, kooku mooy Mbaye Seye. Mm-hmm. monsieur mbay Seye. Mm-hmm. ku yàgg ci daara ji la ku am kóllëre la. ndax defe naa ni fanweeri atam ci daara ji defe naa ni war naa mat te xàddiwul bàyyiwul. fi mu ne nii gisoo ko ci bureau bi mhm. waaye fi mu ni xale yëla ca daara ja mhm. daar internat ba fi mu ni nii gont ji bu fa gontoo xool xale bu am picc mu faj xale bu boppam metti mu faj xale bu am góom euh, mu faj ñëw ne ma nangam manqué na garab sàngam ak sàngam ak sàngam ñu jéem ko fagu mhm. wax dëgg yàlla te ceeg na wax dëgg yàlla xol bu toj lool akuk nangu li ñaan yàlla subhanahu wa yàlla yàlla euh, yàggal ko fi yal na yàlla subhaanahu wa taala barkeel ak njabootam hmm. te it ni mu fi yàggee noonu tamit la dem ba tudde Oustaz Ibrahima Sarr doom doom ji mi ngi ci daara ji ah, kon wax dëgg yàlla ko am kóllëre bu baax a baax a baax defe naa ni ber nañu ko xam ci ñi seetaan réseau bi hmm. ñu bari suñ ko xoolee daañu ko xam euh, Oustaz euh, boo sañoon kenn ku nekk ci Thiénaba ak li ko wër hmm. wala sax ba bitim réew nga waaxu jël carte invitation bi nga xam moom la Babou Salam génne ren teg ko ci loxoom saafante ak moom xamal ko ni ko bis bi sa la waaye loolu jamono daf ko xaw a jafeel Thiénaba TV nag ñëw indi ay caméram ak ay fiilam may la opportunité boobu nan ngay joxe carte invitation ñu jàkkaarloog yow alhamdulilah rabbil alamin jërëjëf sëñ Juga waxal nga ma lu am solo ndax wax dëgg yàlla euh, waa ba mënuma leen a fay ndax man sax dama naan man de sama gàttañlu amaana kenn du ma wuy si. Ah, liggéey bi la rek. ndax bari na lu fay xew. Mm. du ma dem. bari na yit mbir yoo xamante ne war naa cay dem ma koy leen di dajale ba mu nekk ñaari xew wala ñett ma door a dem mm. joxe fa samay warugar. Euh, te it néew na bis bi jot ma waaxul sama bopp kër gu ne ma wala kilifa gu nekk ma joxal la sama bopp sama carte. Mm-hmm. waaye wax dëgg yàlla rasulu bi qadril mursil mhm. jàpp nañu daal ku ma yónni jàpp nañ mel na ni maa teew mhm. wax dëgg yàlla carte yi toujours saa bu jotee ñu teg ko ci loxol Mouhamad Seck bu sëñ Pape Seck Mouhamad Seck bu sëñ Souleymane léeg ak Alaaji Diop bu Njóobeen ñoom ñoo ñooy dem buntu kër bu nekk ñu jox la wala ku ñu war a jox carte ñu jox la ko ne la Oustaz Mouhamed Missa ak daara ja ñoo la ko jox ñu nangu ko ñoom tamit nangu bu rafet jàpp ni ñoom mbir mi ñoom waruñu leen woo waaye ñoom ñoo woote kon daal maa ngi woo ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp waa Thiénaba sekk ñëpp waxaan na ku ma ma ko waxee woon sànq Baye Cheikh Ahmed Tidiane Seck ak yëpp waaye tamit ñi féetewoo jumaa ji yëpp mbokk yi nekk biir Thiénaba yëpp maa woo ñëpp bàyyiwuma kenn waaye caare nit ñi nga xam ne ñoom bis bi ñoom yoo ko moom euh, alhamdulilah rabbil alamin kon li ngeen ma fi doon liggéeyloo euh, kon mu ngi noonu incha allah taala bu bis baa rek ngeen ñëw toog xool Euh, lu ngeen ñu tamit dolli ci ay xel ak ci xalaat ak defal li bàyyi li incha allah taala ñu jël ko mën koo jafe. incha kontaan nañ bu baax a baax tamit. Mm-hmm. ci euh, message bi nga xamante tamit ñu ngi koy jaarale fii kon daal ku dégg message bi mm-hmm. wax dëgg yàlla day maa ngi lay ñaan nga nangul ma ko ni mu mel ni maa toog ak yow mm-hmm. maa ko wax ak yow. loolu daal euh, di leen sant tamit wax dëgg ci nangu gi nga xamante ni noonu lañ ma koy nangule bis bu nekk at bu jot te du ci ànd ak yéene ju rafet ku ñëwuli tamit yaa ngi ñaan. alhamdulilah rabil alamin aywa euh, wa am nañ ci suñu waxtaan loo xam ni mm. bi ñuy tàmbali sax fooguñu woon ni danañ ca mën a yegg. Mm. kon li des mooy ñu delloo la rek euh, kàddu gi. Mm. Euh, nga dugal lépp loo xam ne waroon naa dugg ca ñun egguñu ca. walla looy tàggoo ak mbokk yi. waaw tàggoo gi may tàggutoo mooy di yëkkatiwaat ay ñaan di ko ñaanal Serigne Talla Sarr di yëkkatiwaat kàddu yu njaal di ko teg ci loxol Pape Khalifa Sarr. ak ñi nga xamante ni ak sëñ Alfa sëñ Alfa Sarr ci Espagne ak rakkam yi fi nekk yëpp di jaalewaat suñu kilifa woog di sëriñ Talla Sarr di ko ñaan yàlla subhaanahu wa taala yàlla na yàlla leeral ajjanaam yàlla na yàlla may ko ajjana firdaws si gën a kawe euh, bis bii daawu ko wuute mën mm-hmm. naa ni suuki ak wuuti amee day xëy na daaw lay ne mm-hmm. waaye lu mu masaana feebar feebar dina soox ba ñëw mm-hmm. xanaa daaw defe naa ni la koy wuute waaye saa bis bi masaana jot kii njëkk indi teraanga ci bis bi moom lay doon. Mhm. sax ma saana euh, desee weer dina boros saaku 100 kilo ak dugub ni cere yi reer yi man la war. macha allah boole ceeg lam cay boole. ne man la war. Mhm. at bu jot mu def ko. Mhm. ren ji mu génn àddina yàlla xam ne jàppoon naa ni sax xale yi bàyyi wuñ ko xel waaye. mat na weer bi saakub teraangam boobu egsee saakub teraangam boobu mat na weer ci ginnaaw la ko doomam Pap Sëriñ jox rakkam Ibou Ndiaye mu ñëw indi ma ko nii ma saakub bi la sama baab li la sama baab daan jox mi ngi nii yàlla xam na ni mu sori ci man rool mm-hmm, mm-hmm. loolu sori ci man lool mm-hmm. rëy ci man lool kon ma di ko ñaanal yàlla subhaanahu ak ay rakkam waaye loolu lépp tamit Euh, may ñaan yàlla subhaanahu wa fépp ci nit lekk. amiin yàlla def ko yiw. amiin fulandi ko. Mhm. sabaxatu mi at dexfin. amiin def ko mooy yool fekk ko ca barsaxam. amiin allah euh, di euh, ñaanal tamit Sénégal yëpp. Mhm. dafa ñàkk ren ay kilifa yu bari. Mhm. ku mel ni Serigne Maodo Touré moom it nekkoon nitu daara nekkoon ca Tiwaawoon. di ko jaale mbokk yëpp di ko jaale Serigne Daara yëpp. waaye tamit Cheikh Ahmad Tidiane si. Mm-hmm. almaktuum bu Tiwaawoon di xalif général moom tamit bàyyi koo fi. Mm-hmm. moom tamit ñuy di ko jaale mbooleem xadara Tidiane yëpp ak mbooleem waa Sénégal yëpp di leen ko jaale di ko ñaanal yàlla subhaanahu wa taala yàlla may ko ajana firdaws te suñu kilifa yi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk yàlla sàmmal ñu leen ndax sagu diina ji lañ sagu réew mi lañ waaye tamit ay régulateurs sociaux lañ yoo xamante ni saabu réew mi demee ba xaw a am fu mu toll. bu njëkkatee seen kàddu ñëpp delluwaat nekkaat ci jàmm waaye tamit biir Thiénaba it foog tamit ma nuyu di ñaanal mboolem sëriñ daara yi nekk biir Thiénaba mhm. yëpp mhm. te ak seen mbooloo ma nga xam ni moo fa nekk ñoom oustaz Dame Khoule mhm. euh, jiite ko ak ña nga xamante ñoom la ci àndal ñëpp daara Thiénaba yëpp yëpp yëpp ak seen mbooloo moomu ñu leen di nuyu ñoom tamit di wan leen ni Babou Salam bii membre la ci mbooloo moomu la incha allahu taala léegi ñu jàppe ci euh, comme ni ni ko waxee woon sànq am mbedd rek moo dox ci diggante Babou Salam fii ak ba kon daara ji ma foofu ci mbooloo moomu la bokk kon daara alxuraan yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal yàlla yàlla na yàlla dëgëral leen te jàppale leen Baye Mori Seck moom itamit ñu ngi koy doon dolli di ko ñaana bu baax mhm. yàlla subhaanahu wa taala yokk ay leeram may ajana firdaws te di ko jaale tamit wàcce na ba gépp mhm. alhamdulilahi rabbil alamin kàddu yooyu daal bëggoon nañu bala ñu doon jeexal man ko cee yokk wasalaamu wa rahmatullahi taala wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf euh, docteur Mouhamadul amin Sarr directeur baabu salaam ànd ko ak équipe bu ama am solo ñu doon ci seen wéyjur sunu kilifa Baye Serigne Ibrahima Sarr ci donn goo xam ni desaluñ ca dara ci ni góor gi daan taxawe te mooy fas yéene fépp fu mu nekk rek am fa njariñ waaye njariñ loolu nag tegu ci diine ak mbaax loolu ñoom it moom la ñuy jéem ànd ak euh, doomi jullit yi nga xam ne ñoom ñoo taamu nekk fii di fi sàkku xam-xam ngeen gis ko ci film bi bi ñu xëyee ñu dugg ci classe yépp xool nu liggéey bi demee élèves ci boppam seedeel seen bopp ni ñu ci bari jànge fii moo leen gënal jànge feneen macha allah di lu ama am solo ndax baabu salaam day jàngale day yar euh, te moo ren sax dégg ngeen nim ñu ko tëggale moom oustaz te mooy euh, sécurité na ko ñëpp am takat sécurité tey jàmmi biir mooy nit ki bu defaree yaramam ba mu mel na mu war a mel ruuxam tamit na ni mel macha allah kon biir ak biti lépp dafa war a dëppoo nga am jàmm thème boobu nag ku ci bëgg lu gën a yaatu ci ay xibaar rendez-vous baa ngoog dimanche 7 mai 2017 fii ci Babou Salam 9h la ñu koy xëyee incha allahu balaa timis ñu ñaan yëkkati jataay bi ñi ngi ñaanal képp ku fi ñëw yal na yàlla def muy sa fajug aajo ku yéenee ñëw ca mujjoo ko man sax yal na yàlla defal la loolu waaye nag ku ci mën a jàpp ci biir ak ci biti bul ni rek oustaz nee na préparation yépp aw na yoon kon la ma waroon a yónnee naa ko tey déedéet liggéeyu yàlla la nag tey daara te du bis bi rek la daara ji am ay bis a ngi ci kanam incha allah te ginnaaw conférence bi doxinu daara ji day continuer mbokk yi xarit yi Thiénaba TV moo doxantu woon fii ñëw ci baabu salaam Alpha Ibrahima Sarr directeur moo jiite délégation bi ànd ak Moussa Ndiame Guèye directeur de programme ànd ak xalifa Ndiaye caméraman lu fi jub oustaz moo ko wax ak ñi ko jiitu ci kàddu gi lu ci dëng mbaa jotuma caa egg nag maa ngi leen koy jégalu. rendez-vous benn la te maa ngi leen koy dikk incha allah mooy 7 mai 2017 fii ci Babou Salam wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërë ngeen jëf euh, mbokk yi ñu ngi jàkkaarloo Oustaz Mouhamed Fall Oustaz salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. sëriñ Oustaz lu xew sant yàlla bu baax xam naa ni <laughs> ren daal euh, changement yu bari am na. wallaay wallaay changement yu bari am na. Hmm. xam naa ni euh, formule bi ñu doon conférence. Hmm. ren dafa am beneen coppat bu ci am. wallaay beneen changement boo xam ni moom lañu bëgg a doxalewaat ren. Hmm. seet ba xam. dafa mel ni fii ñu fekk sama gars yi te mooy soldats yi ñuy def répétition. ñoom est-ce que euh, ni sax seen yaram dafa yëg ni conférence bi dugg sax gannaawaat suba mais suba la. waaw ñoom moom de pare nañ début ci biir euh, année scolaire bi daanaka ci lañ liggéey lii ba daanaka ñoom pare nañ bu yàgg lii ay répétition la rek buy wane ni euh, ñu ngi jëm ci bis bu mag. incha allah ñu leen di ñaanal yàlla ci yàlla dolli ndam ñu expliqué ñu tuuti nag lan lañ doon wax man maa ngi ciy dégg baatu senegaal baatu mais loo ñuy leeral bañ way lañ nar indi boole kook seen maaj bi. waaw mooy woy bi nga fekk nii incha allah moom nga fekk nii ñu koy ñu koy xale yi ne ci maanaam di wane ni ñoom sénégalais lañ. Mm-hmm. waaye fier nañ ci nekk. Mm-hmm. ci ci nekk sénégalais mm-hmm. mu nekk réew moo xam ne nii euh, réew mu yàgg bu diina yàgg balle la. ay mag nekkoon ci fàkkal ñu yoon bi ba mu yaatu mu mel ni am na lu ko bëgg a xajamal. te loolu ko war a xajamal nag ndaw ñi ñoo war a jugaat seppi loolu ba mu set sànni loolu nag mënuñu ko def lu leen ko jëmbat ci ci tànk yi jëmbat ko ci xale yi ba kañ bu màggee ñu xam dëgg-dëgg seen seen dono seen dono ndax valeur yu bëri gis na ne ñu ngi koy perte kon ñoom xam nañ seen responsabilité ci réew mi xam nañ ko bu baax a baax mhm. moo tax daanaka ci kanam tuuti dina gën a lépp dina gën a leer incha allah ayca euh, oustaz dafa mel ni yàgg euh, oustaz Lamine ak ñi a xaw a yem tey mooy ay secret rek rek Oustaz feeñalal tuuti ci li war a jëm lu waaw lu mel nii ci la bokk. defe naa ne daan fi ñëw. Euh, li nga fekk tey jii defe naa ni euh, fekkoo fi woon lu lu lu mel noonu. Mhm. kon am na ay changement yu bëree bëri. yoo xam ne mhm. dina am. Mhm. te incha allah bu demee ba ci bés ba. Euh, xam ni copp am ñoom soldats yi nga xam ne yaakaar naa ñooy ñu mag ñi ban waxtu exactement la ñu war a génn pour nit ki war ko bàyyi xel. waaw xam naa ni waxtu woowu moom. Hmm. dama doon bañ di ko di ko anticiper. Uh-huh. mais almuhim daal ngoon gi moom. Uh-huh. Euh, bu ñu añee ba pare. Uh-huh. incha allah bëgg nañ ñu def benn. prestation dinañ xumbalaat waaw prestation bu am bu am solo. te bëgg nañ sax suba gi ñu am ko même ngoon gi ñu am ko. mais li man a am daal mooy ngoon gi moom incha allah dinañ am prestation bu dëgër dëgër dëgër. boo xam ne nii dinañ ko bégal gan ñi incha allah. lan mooy sa appel ci ñi lay seetaan ngir ñu farlu nag teel a ñëw. waaw sama appel de xanaa euh, nuyu waa Thiénaba yëpp. Euh, ziar leen baalu leen xaq di ci jiital euh, kilifa ga nijaay koo cay gën nuyu ginnaaw kilifa waaw bi ma jiitalee kilifa ga Baye mm. Cheikh Ahmed Tidiane mm. ñu ngi koy nuyu di koy di ko sàkku ci moom ñaan mu ñaanal ñu insha allah mm. teg lu nuyoo bi ci loxo mu nuyu jàllale ñu ko wàcc na ba yëpp waaye nag ni ngi beral nuyoo sunu wayjur di ko ñaanal borom bi subhanahu wa doolu ko wér doolu ko tawfiq sunu waajur yi ne ci kër ga ak waa dëkk ba yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di beral nag euh, sang bi sekk macha allah ni mu koy beral ñoo di wax salaamaaleykum wa rahmatullah saar waa ngi soog a daanu. <laughs> rendez-vous kañ. rendez-vous la set incha allah. incha allah mooy dimanche bii ñu dëgmal incha allah. incha allah fii ci Babou Salam ñu ngi invité yëpp 8h incha aywa wa shukran oustaz kon ñu ngi jërëjëfal waa Thiénaba TV bu baax a baax di la jëfara ñëw yow njugo di jërëjëfal Moussa Ndiame mhm. di ñu jërëjëfal sëñ Alfahim di jërëjëfal Xalifa mhm. ci liggéey bi yàlla barkeel ko te def lépp ci seen misaanu xasanaat mhm. salaamaaleykum wa rahmatullah amiin kon ñu seeti beneen pàcc wala jeex na ñu def beneen pàcc mi ngi ci kaw insha allah mooy jigéen ñu mag ñi comme ni nga gis ji góor ñu mag ñi des na jigéen ñu mag ñi ñu ngi ci kaw insha allah ñu dem ci ñoom fitna rey nañu samay doom lii doy na fitna faat nañu samay waayjur samaw askan neen faat nañu samay waajur samaw askan neen bombardé nañ école yaak jàkka ya màbbu nañ kër yaak hôpital ya aa ah, jullit yàgg naa sonn dimbali leen seen mbokkum jullit ko ndox mu naan wax de eh fompal leen ko ay rangooñam yu tiis. solal leen ko ay yére jullit. solal leen ko ay dàll. alhamdulillah alhamdulillah xamoon naa ni su ma ñëwee ci samay mbokk dinañ ma defal xamoon naa ni su ma ñëwee ci samay mbokk dinañ ma defal Sénégal réewu jàmm Sénégal réewu teraanga jàmmu la woote nañ ca dem Sénégal Sénégal Afrika Afrika baax la woote nañ ca dem wuy si ci bii anam. Sarr bëgg naa sama école bëgg naa sama école. Ah. Babou Salam sama école. jàngal ma tubaab angale. xamal ma sama diine. ayca bëgg naa. suñu école Babou Salam naam sama école Babou Salam yaa di sama ñaareelu kër gannaaw kër ga ma juddoo yaa di kilifa si man gannaaw samay waayjur yaa ngi nii lal ba mel liggéeju jot nañoo naa bay waaja man di xam yaa ni woon xam-xam du doy ma ree ko ko waaye xam-xam du doy yaa ma xamal tawxiid xadiis araab français anglais ngi ci biir doy eskay li école bi ëmb na yar ak yërmande lii nga ma digoon ba may tàggoog samay wayjur eskay yaa ma oustaz euh, salaamaaleykum. waaleykum salaam wa euh, ñu fekk la fii nga ànd ak euh, oustaz Ndëri oustaz Mouhamad Fall oustaz Ibrahima ak ñi ngeen ko bokkal ngeen mel ni yéen ngi teewe répétition wu jigéen ñi ñoom lan lañ waajal ren. alhamdulilah rabil wa wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. oustaz Ndiouga ak sa équipe bi nga àndal ñu ngi leen di dalal fii ci école baabu salaam di nuyu waa Thiénaba yëpp. di jiital ci nuyoo ba xalifa général yàlla na fi yàgg te wér ak mbooleem euh, kilifa diine yëpp euh, di wane ne ñu ngi ci répétition bi nga xam ne ci phase bu mujj bi la ñu nag euh, ustaas yi nga xam ne ñoom lañ àndal fii muy ñu ngi ko tuddee rek xale yu jigéen ñi ñoo nekk fii équipe bi moo fi nekk ñu ngi préparé presque mën naa ne buñ ne woon tey la pare nañ très bien buñ ne woon tey la pare na kon yéen am ngeen secret parce que Euh, xale bu jigéen bu toll ci jànqu ni koy faral di waxe mm. ànd ak moom dafa xaw a jafe. Mm. lan mooy seen secret ba ngeen maîtriser leen ba mën leen a liggéey loolu yi. waaw li nga wax dëgg la xam nga liggéey métti na waaye rawatina liggéey bi nga xam ne da ngay xale bu jigéen bu mat. waaye fii li fi am secret bi ñu am mooy yarub islaam bi ñu leen yar école bi nekk école diine am na tën yoo xam ni duñu nangu ko fi sol am na wax yoo xam ni du ñu nangu ko fi sol te parents yi xam nañ ko élèves xam nañ ko tënku nañ ci. su ko defee ñooñu nag lislaam rek ngay teg seen kanam looloo tax mën naa ne bu sekkare amee diine lislaam rek moo moo ma leen cuub mhm. moo tax mu ñu neex liggéeyal wax dëgg yàlla kon liggéey bi daal vraiment euh, xale yi tënku nañ ci daal macha allah muy la am solo euh, oustaz ci suba ba léegi nag ku ma waxal ci yéen rek ci groupe bi yaa ngi may nëbb ay secret pour le set hmm. yow loo may musal tuuti bokk xanaa waaw xam naa ne dina ma xaw a jafe lool euh, moo wax lépp daal Euh, am na conférence yoo xam ni chaque conférence day am surprise. man mii sax di wax ak yow am na loo xam ne lii kumpa ci man. Ahmed Fall am na loo xam ne kumpa la ci moom kenn ku nekk day am domaine boo xam bi day nekk kumpa ci yow su ko defee am na lu ñuy wane am na loo xam ne dañ koy nëbb nag bala bala set incha allahu taala ñu doon ko wane. mais alhamdulilah daal mooy ren moom yaakaar naa ne di nga gis loo mësta gis. kon di ngeen indi lu ngeen daawul indi. waaw dinañ indi liñ daawul indi lu bees loo xam ne lii. vraiment yaakaar naa ne bu ñu yàlla mayee wér ak fekkee ku fekkee bés boobu daal di nga bëgg di nga kontaan incha allah. rendez-vous bi kañ la. rendez-vous bi le 7 incha allah. incha allah le 7 mai. le 7 mai fan. fii ci buntu école bi ci buntu jumaa ji euh, bëgg nañ parents d'élèves yëpp huit heures fekk leen ñu nekk en place. Mhm. incha allah pour ñu gis lu yéeme. pour ñu gis lu yéeme parce que animation bu am solo mooy am démonstration yu am solo mooy am ak ay surprise yoo xam ne yii moom mën ngaa ne tey lay door nga am daal. Oustaz wa shukran. waaw jërëjëf wa shukran waaw. nii ñu maas ko ci suuf noo koy jàngee. xëy. kon lan mooy soppi xaraf bi. maas kay. muy ban. bu taalee ko ci kaw. ak bu taaleeku. suuf ak bu. law. lii su ma commencé lii ñu ngi koy jàngee. Ah?